salaamaaleykum mbokk internet yu Dakar Buzz maa ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte di ànd ak yéen saa su nekk tey comme ni ngeen ko gisee nag ñu ngi fii ci benn kaa ba nga xam ne nag daal nañ koy di dénoncé ndax nag benn xale bu jigéen ba nga xam ne xel bi neexul mu nekk fii nag am benn waay aussi bu ñëw rek bëgg di ko sàkku su guddi gi jotee loolee nag nekk la nga xam ne waa koñ bi nag rafetlu wuñ ko ba tax ñoom ñu bëgg ko daal di dénoncé ñu daal di togg suñu benn maman moom mun nañu daal di expliquer mbir yi naka la demee maman na nga def waaw maa ngi sant yàlla bu baax di leen nuyu yéen waa dakaar Buzz maa ngi leen di nuyu di leen ñaanal jàmm di ñaan seen liggéey bi yàlla barkeel ko waa kii nag euh, moom mari Diop la tudd Marie Diop la tudd malade mental bi Marie Diop la tudd yàgg na tëdd fii nag ci buntu kër gi mais da doon tëdd normal amul benn problème ñun ñoo koy jox lekk kii bu heure ji lekk jotee bu soxlaa dara day ñëw sone suñ ko tijjilee mu laaj li mu bëgg ñu jox ko bu dee kafe xaalis lu mu bëgg dañ koy jox mais xaalis bi dañ doon éviter di ko ko jox parce que da koy jëndee sàngara waaw léegi nag loolu moo tax su laajee fukki dërëm lañ koy jox wala ñu may ko kafe bu heure lekk jotee dañuy jël añ am na palaatam buñ koy tibbal ak kuddam ak yëpp dañ koy tibbal jox ko kuddam ak ndox mu naan su paree daal di delloo palaat bi fi mu nekkoon daal di tëdd palaasam léegi nag dañu remarqué lu mat trois jours yoo xamante ni dafa am benn waay bu jóge fële ñëw toog. su ñëwee toog si wetam di wax ak moom mais moom du ko déglu mais waa ji daf koy sonal ak ay wax di saaga di déconné léegi nag bu guddi jotee waa ji dafa yore sàngara waaw bu guddi jotee day bàyyi ba mari jàppanteeg ay nelaw mu yee ko di ko ko jox su ko defee mari day yuuxu fii di ne ci kawam ba waa ñii ñi ñi mu nekk si fen fenêtre du ñu nelaw biig moo si mujj biig ba 4 heures du matin marin si mbedd mi di yuuxu tëddul ba tey léegi waa xam ni mënul jot si moom mu daal di ñëw daal di teg mbàjjam sàngu tëdd di nelaw Marie moom ba léegi nelawul. dafa doon ñëw di dem. waa ji ñëwul woon dem trois jours yi daal lañ ko toog lañ ko gis mu toog démb woo nañ borom kër gi ni ko waa ji na fi jóg bi borom kër gi ñëwee daf ko engagé ni ko man ragaluma police ragaluma dara. mais dafa masque wu takk wàcce mbaxanaam ba mu egg ci bëri mu masque kanam gi ku ko tudd mu saaga la démb dafa mujj engage ba borom kër gi ba borom kër gi dafa daw mu ne ko mënoo leen ma fee jëlee mënoo leen ma dara léegi gis nga ko nii ci suba mari dafa xëy dem mu tëdd di nelaw léegi bi mu yeewoo léegi mari daf ko gis daal di isolé wu dem toog côté bi ma ñëwee di ko jox ndekki jox naa ko ndekki bi mu naan kafeem jël mburoom mais waa ji daf koy day jóge fi mu nekk ñëw fekkul teel mari bëggul ko ko jege moom bëggul góor bu ko jege. mais daf ko bëgg a sàkku. ko bëgg a daf ko bëgg a parce que gis nga mari lu nekk da koy traité sur tous les noms la koy traité parce que bëgg moom bëggul góor bu ko jege. bëggul góor jege ko loolu daal la parce que wóoluwuñu ko daal ak moom te ñun mënuñu ko jël di ko fat suñu kër parce que wérul waaw wérul te mënuñu ko jël daal di engagé boobu risque di ko jël di ko fat suñu kër mais suñu sañoon daal kuñ si mën a dimbali yóbbu ko loo ko mën a dimbalee nga dimbalee ko ko ba woo ndax waa ji jóge fi ndax waaju ji ñun tamit nekkuñu sax en sécurité parce que xamuñu lu ko tax a jug mi ngi teg li bitéeli sàngaraam masque kanamam nee na ragalul police ragalul dara ragalul kaso ragalul dara. xam ay mbokk ngeen wala xam ngeen ay mbokkam fu ñu ne. non non Marie ñun duñu ay mbokkam moom gis nga ko nee na Côte la nekkoon nee na Côte la nekkoon même benn am na benn frère am boo xam ne sax comme moom la nekk des fois dafay ñëw. si ay mbokkam am na kii borom kër gi am na numéro téléphone papa dégg naa ñu ne dañoo logé woon fii si kaw léegi du ñu dem bu seen problème yi tax ñu déménagé wu bi ñu génnee nag moom nangootulu jóge secteur bi non nangu fi jóge borom kër gi day ñëw des fois deko ne ci kaw dàq ko mais su ko daqee dana ko du ma fi jóge parce que kër gi ñun ñoo ko moom ñoom ñoo ko moom loolu lay wax nangu fi jóge léegi nag keroog ñëw na borom kër gi sax ñëw na engagé ni ma bàyyi leen lekk bi ngeen koy jox parce que tant yéen a ngi koy jox lekk du fi jóge ma ne ko man indiw ma ko fi kenn indiw ko fi mais su toogee war a lekk ñun dañ koy jox mu lekk parce que duñ ko seetaan muy xiif yàgg na fi ñun bi ñuy toxu si fii fii lañ ko fekk yàgg na fi de man xaw ma ñaata at la fi def mais yàgg na fi waaw yàgg na fi yàgg na fi. Mhm. léegi est ngeen euh, contacter police walla pour waa ji nga xam ne moo fi nekk. non waa ji moom ñun contacter ñu police. contact ñu mosuñu ko contact ak ñu police parce que léegi la moom laa doon wax ak kii mu ne ma waa ji il faut ñu woo police police moo ko fiy jële police moo ko fiy jële mari nag moom ay mbokkam daan nañ jógee fee ñëw di ko seet mais su su leen gisee rek day daw bëggul gis mbokk yi du gis mbokkam xanaa frère am boobu nga xam ne wérul kooku moom su ñëwee day waxanteek moom mais ñi nga xam ne ay mbokkam ay yaayam ak papaam ak beneen frère am boo xam ne ragal na ko kooku su ñëwee rek dootuñu ko gis dina toog sax ay 3 jours yoo xam ne day raar koñ bi du ñëw non du ñëw du ñëw lan ngeen di waa ji ki nekk moom dinañ ko dénoncer waa ji moom suñu fexee ba fexe ba mari jóge fi ñu am kuñ ko dimbalee waa ji moom dina fi jóge parce que dinañ woo police mu ñëw dinañ woo police parce que su police dina fi ndax ñun ku ko fi tudd xamuñu dafa yor arme xamuñu léegi nag bu ñu fexee ba mari ñu am ku ko dimbale waa ji moom dinañ woo police police fi ñëwee dina fi jóg. aussi yaa may wax ne daf leen di menacer dafay menacer mari. day menacer mari démb am na benn xale bu jóge ci kaw romb ko rek. mu koy dagg kooku di ko xoole mu ne ko loo may xoole commencé di ko daggal ay saagay ndey am benn xale bu jigéen bu génn di bu am ku muy waxal fi mu naan ko nii ngeen di def ay caga ngeen da di jaay seen bopp guddi nekk fii di saaga di dekkoon lu ko neex lay wax gis nga kanam gi dafa takk masque masque am boobu ba mu fi ñëwee ba lay dindiw ko mbaxane bi mu xëcc ko ba ci bët yi. yaakaar dañ ko yónni wala. non non pas xalaatuma sax ay affaire yónneent mais tamit dëkk bi moo doy waar te nit ñi lu la ñuy def. mën na nekk ñooñu di détecté këru jàmbur yi bu guddee ñu def lu leen neex mën na nekk lu nekk te comme kër gi kër locataire la mën na yéeg ci kaw làqatu fa lu nekk mën na am pour tamit suñu sécurité bopp ak suñu njaboot dañu yore ay xale suñu sécurité moo tax te xamuñu lu ko tax a jóg nee na moom yore na xaalisam soxlawul dara parce que démb bi ma xëyee di jox Marine ndékki mu naan ko kër gi fii kenn baaxu fi xoola kër gu mel nii ñu ñu lay seetaan dooñ la jox nga lekk duñ la toppatoo kii rek ki la jox café bi ak mburu bi rek mooy dugg àjjana di daa di saaga tout la journée dafa yendoo saaga ah man de teguma ko dof man teguma ko dof man ndax nee na ko man yii ñu lay jox yëpp soxlawu ma ko naa ngi sama xaalis su ma neexee lu ma neex lay jënd parce que li tax mu xalaat ni mari day naan ba mu dem mu jaral ko am sàngaraam lëmas ko ci kayit ñëw teg ko su ko joxee mari ni ko bugguma ko bugguma su guddee nag mu bàyyi ba mari jàppante ki ne la mu yee ko di ko jox loolu lañ xamul lan la si jublu waaw loolu daal lañu xamul lu mu si jublu te kii ku mel nii tey nga sàkk ko mu mu mu jële si ëmb danga nga koy indi problème da nga yokk problème mu ngi si mbedd mi gis nga sama doom bi moo mujjee jël rideau bi nekk fii ni ko mari dee ko sàngo pull boobu mu sol moo ko ko jox moo ko jox ni ko mari dee sàngo kii bi gis nga bi mu ko njëkkee jox benn drap bu blanc def ni ko nabu bul ma jox bu drap bi parce que dama koy tilimal mu ne ko may garaawul sàngoo ko mu ne ko noonu seetal ma beneen bu tilim bu bu bu bu ñu bu weexul parce que man bu weex bi daf mu arrangé wu ma kooku daal di mujjee jël rideau bi jox ko ko rideau bi su ko sàngoo bu bu faje bu si yeewoo da koy jël lem ko ñëw dugal ko fii ci biir kër gi fi lay denc ay bagage du dóoree du def amul benn problème dara ñi ci kër gi nag bi fiy soog a toxu si am na ci ñoo xam dañ ko ragal mais moom jotewul ak kenn dara fii bu soxlaa dara day ñëw sone ni ma maman lii laa soxla ma jox ko bu la fekkee mu ne nabu lii laa soxla nabu jox ko wala jànq bi kum ci ñëw danaa la jànq bu fi ñëw bees sax day ñëw ni la maman kii nu mu tudd nga ne ko diw la tudd mu jàpp tur boobu su day sone an diw nga ne ko bu bu la gisee bees du nangu wax ak yow non non man toog naa fi am naa fi deux mois yoo xam ne nangul wax ak man bii nabu ñëwee ni ko kii sama yaay la si lay soog commencé ñëw su ma maman wala danaan ñëw sax si fenêtre bi may tëdd su ñëwee ne ma maman nanga say na mu ne ko bul defandi si fenêtre bi day ñëw si bunt bi su ñëwee day sone ni lii laa soxla kii sax dangay ñëw laajte ko nii demal neen ma na ma jox nanga wala nee ko na ma may benn jeton damaa bëgg jënd mais man bugguma di ko jox xaalis parce que bugguma mu jënd cigarette wala mu bëgg mu naan waaw mais daal doy na waar daal. daal moo ko sonal daal sonal na ko moom. sonal na ko moom gis nga ko yéen a ko gisal seen bopp waaw yéen a ko gisal nga bi mu ñëwee ni mu def. buggul waa ji jege ko waa ji gis nga ko bi mu yeewoo dafa dem toog fu fële jàkkaarloog moom face à face di ko xool mais bu waa ji ñëwee toog si wetam rek gis nga mari day commencé commencé de ko ni daal loolu daal suñu problème la. bëgg suñu jàppale la xanaa ku ñu ci jàppale su fekkee ni mën nañ ko jël yóbbu ko foo xamante ni dinañ ko faj suñu wooyee ay mbokkam suñu ñëwee ñu mën ko jàppale ci parce que mbedd mi mu nekk nii wóoru mbu mbedd mi wóoru parce que ñun tamit yërëm nañ ko. mais xam nga am na yenn risque yoo xam ne tamit mënuñu ko jël parce que tey su kenn defkatu ñaawteef ñëwee di ko def dara ñun mënuñu gis dara ndax mën mën nañ génne di ko dimbali ñu gaañ ñu loolu daal lañu bëgg ku ko jàppale daal ba mu jógee ci anam yi mu nekk loolu daal la ñu bëgg. lan lay xaar pour woo mbokk yi. woowoon nañ leen fii moom woowoon na leen fii ñu ñëw mais su leen gisee dootuñu ko gisati. loolu ñu ko gisat léegi nag borom kër gi day obligé ñëw di ko di ko angale si kaw jógeel fii mu mais gis nga bu ñëwee day taxaw takk digg li ba mu dëgër taxaw jàkkaarloo. défensive moom. kenn du ko jege. kenn du ko jege dagg di koy daggal saaga ni ko kër gi mënoo moomoo ko man maa ko moom benn jour dama ñëw keroog ni ko mari ma ni dama koy yedd ma ni ko mari léegi yow mënoo seet beneen place nga dem di fa tëdd soo fa tëddee su heure lekk jotee nga ñëw mun ma du ma jóge fii parce que kër gi man maa ko moom ñun ñoo ko moom. nee na ñoom ñoom ñoom kër gi mu ne ma ma ne ko kii mooy borom kër gi mu ne ma du borom kër gi moomu fi dara ñun ñoo moom kër gi moom beneen kër bu balaa bi la moom mais moomu fii fii ñun ñoo ko moom fii du ma fi jóge duñ ko jox lekk. jàpp ne ay la wala dafa traumatisé. man daal man daal xaw ma nu mu demee man daal xaw ma rab la parce que comme moo jàpp frère am tamit rab nga koy mën a jàppe oh. frère am ñi la mel waaw bu ñëwee moom dina wax ak moom mais frère bi day gege moom tamit da nga koy gis muy déconné di yuuxu di jàng yooyu lay def moom mais moom tamit jotewul ak kenn daal man mosuma ko gis sax mais sama doom bi gis na ko gis na ko moom. lu ma siy dolli daal mooy kuñ si jàppale rek kuñ si jàppale waa ji moom su fi mari su ñu jàppalee mari ba mari dem waa ji moom dina fi jóg ndax dinañ woo police dinañ woo police mu jóge fi ak nu mu fi jógee nag dina fi jóg parce que yor tamit lii wóoru wóoru. sàngara bi mu koy jox mën na màndi mu sàkk ko mën na màndi mu sàkk ko te bu boobaa tamit problème lay yeneen problème lay doon ndax yàlla xam li yàlla xam doy na loolu la rek yërmande rek lañ am si moom yërmande rek lañ am si moom waaw loolu daal lañ ci bëggoon ñu si jàppale am si yéen yaakaar trop nag waaw li ñuy def nii tamit defuñu ko ngir gistal defuñu ko ngir ngara dañoo jàpp ni doomu aadama la ñu ñuy doomu aadama ñu yërëm ko ci anam yi mu nekk parce que sedd bi mu tëdd nii karo yi muy tëdd dafa metti dafa metti ah ngay tëdd ci ngelaw li di la farfaree fu nekk ñu boole ci ñëw di la bund dafa metti lu nekk da koy seet ci sa bopp loolu kese la du dara nag waaw loolu kese la. voilà mbokk internet yu Dakar Buzz ginnaaw ba ñu daal di jugee fi nga xam ne nag moo di ci Zac Mbao dem fi ki nga xam ne moo di maire boobu daal ñu woon woo. pour kaawu Marie Marie nekk ka nga jigéen ba nga xam ne xel mi neexul nag mu nekk ci buntu këram moom mu nekk di ko toppatoo di ko defal lépp wante nag mu am la nga xam ne daan na koy jaaxal muy benn waay bu góor bu ñëw foofu di fanaana ci buntu kër gi commencé di sonal Marie ba tax moom mu daal di woon contacter ndax nag cas bi daf ko xaw a jaaxal loolee nag waxal ñu daal di ñëw fii daal di jàkkaarloo ki nga xam ne moo di papaay Marie ñu dal di fas yéene sekk ak moom waxtaan ci li nga xam ne nag dafa jëm ci kookee di Marie pàppa nuyu naa la. waaw bëggoon waxtaan nga xamal ñu kan mooy Marie ak feebar bi nga xam ne moo ko dal depuis kañ la ko dal. oui oui Marie c'est ma sama doom bu jigéen la alors euh, li ko dal moom mu ko dalee Guinée boobu yaayam moo booba dafa demoon seeti bi mu demee foofu bon nekk fa ak yaay ji moom elle a déjà elle est elle est artiste artiste plasticien elle fait les beaux bi mu fa demee elle a réussi à obtenir un contrat avec. Euh, le centre culturel français qui est à Conakry et ses affaires commençaient à fonctionner ba ñooñu defal ko contrat pour muy liggéey ak ñoom pour faire des tableaux et autres bon elle était avec sa maman ses affaires allaient bien elle gagnait de l'argent elle commençait à s'occuper de sa mère de ses petites sœurs et autres mais à un moment donné mu am benn liaison bu mu am ak un alors finalement bon mu am fa un accident mu enceinte ko mu am ci doom euh, bi muy accouché nag ci doomam boobu taawam ci la ko mbir mi dikkale. bi daf ko takk wala. takku ko xam naa promesse la ko defoon certainement que naa la takk mais après daal bi mu amee doom dafa mel ni daf ko délaissé daf ko bàyyi. Alors là, elle s'est révoltée, commencé à créer des difficultés à, au Burkinabé. Nous avons un petit bir, nous piqué à une crise. Ah, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, accouchement, ce qu'elle m'a dit. Bon, comme le gars était là-bas avec moi, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous le gars pour pour se de Marie woo ma woo wax yaay ji ne ko nañ ko delloo Dakar ci papam en 2006. en 2006 oui 2007 finalement lañ ko indiwaat fii ci man waa ji jël engagement def koy jëlal appartement tous les mois mu jox ko lu mu dundee ah ñu dem ba ci biir. mari jëloon benn appartement au niveau de foire de la euh, fële foire fële mm-hmm. mais après elle a piqué sa première crise là-bas à ëpp euh, foire fa mu nekkee voilà ba mu nekkee foofu man ma yëg ko dem comme son enfant était tout petit je ma jël xale bi laa jëlee xale bi indi ko indi ko fii mm-hmm. donc il avait ay trois ans deux ans trois ans yooyu parce que je ne voulais pas le laisser avec l'enfant, compte tenu de sa situation. Ensuite, ñu jël ko interné ko mu nekk lu yàgg euh, fan bi mu nekkee fan lu yàgg mu euh, tane jënn bien melaat na mu meloon comme elle avait laissé tomber le logement de la foire mu jëlaat beneen logement au niveau Euh, kii boobu nekk fële côté Sones voilà fole ci wetu Sones bi jël fa benn logement nekk fa ak ñoom nekk fa ak son ma delluwaat ko xale bi le gars a continué pour payer son loyer yooyu yëpp mu jël bon ak yooyu yëpp par la suite yaay ji ñëw nekk ak moom foofu. ñëw na Sénégal nekk ak moom foofu ñu dem ba ci biir yaa ji ne day dellu si bàyyiwaat ko fa mu nekk ak waa ji mu nekk ak euh, moom kenn avec son enfant ñu dem ba ci biir encore crise bi dikkal ko ci laa ci laa ne bon ma delloo woon ko xale bi man ci laa ne nag kii crise bi piquewaat na ko je j'ai pas du ma ko bàyyi ak xale bi encore ma récupéré waat xale bi indi ko sama kër mu pique fa crise bu metti ñu yóbbu ko yëpp en 2007 waaw par bon loolu kii yee ma ko indi ko mu nekk ak man moom mari ci boppam mu ah, mu bàyyi logement boobu pour côté de moi pour mu gën ko mën a surveiller bi mu ñëwaatee ak man avec son frère il a ñu nekk ak ñoom nekk ak moom nekk ak moom jékki-jékki bon son grand frère est parti en Côte d'Ivoire moom mu nekk fa man ak moom ak doom ji mais ñu dem ba ci biir mu piquewaat crise bu grave ma yóbbu ko clinique clinique bu euh, docteur Boissy au niveau du centre psychiatrique bu Mbao j'étais avec elle pendant vingt et un jours ñu nekk fa tout allait bien ñu traité ko yooyu yëpp mu defaat mu normalaat elle était revenue à la maison bi mu ñëwaatee à la maison toogaat tuuti lu yàgg lu yàgg diir bu yàgg mu pikkewaat crise parce que xam naa ñàkk jël garab yi la woon parce que à l'hôpital moom ba fa nekkee tous les jours dañ lay jox garab yi mais quand elle est toute seule elle peut pas prendre ça elle veut pas prendre ça du du ko jël bon finalement ñuy dem avec le temps mu def fi benn fugue bu yàgg dem dellu dem kon konak dem euh, ko dafa dem bama Bamako xamoon sax fu mu dem dafa dem lu yàgg man xam mu nekk wër naa ko partout dans Dakar mais finalement un de ses cousins moo ko romb à Bamako parce que lu tax mu dem ci bâtiment boobu bi mu nekkee Guinée bi ñu koy indi dakaar yaay ji dafa def crochet au niveau bama ko sa tante vivait la ba rak yaay ji bon euh, fa ñu nekkoon immeuble ba mu nekkoon bi mu defee fugue dem ba ma ko mu dem fekk kooku jóge na fa ba dem France parce que ñoom ison ont une nationalité française d'origine France waaw seen yaay tubaab la bon ñu am nationalité tante ji dem en France rek lay kayitam installé wu en France jóge Mali bon moom bi mu defee euh, fugue bi mu dem ko en espérant trouver sa tante là-bas mais laajte ñu ne ko sa tante boobu jóge na fi yaa trois mois mm-hmm. alors xamul fu mu jëm mu toog foofu ci buntu immeuble bi dans un état bul xam benn cousin daal ma def ñu def recherche dugal ko dans les réseaux sociaux kër kër un cousin daal à moo ko ji xàmme ko alerté yaay ji alerté ñëpp yaay ji ñëw Bamako récupéré ko yóbbu ko parce que benn euh, seen benn cousine a nga fa doon sëy son mari laa été ñu interné ko ba mu normalaat ba mu normalaat changé complètement ni mu meloon léegi nag dellu Conakry ñu toog tuuti yaay ji woo ma ne ma daf may indil mari daf ma koy delloo si ma ne ko mais non garde là c'est une femme comme yaay ji xam na sa situation ne permettait pas de garder mari parce que yaay ji ne travaillait pas bon problème de fu ñu nekk. boo feer mu ngi koy gën a sonal. boobu mu ngi koy jëlee sonal. boobu tane na mooy bi ñu ko jëndee euh, fële Bamako ñu dugal ko ci kaar expédier ko. mu ñëw fekk ma voilà bi muy ñëw elle était normale y avait rien elle restait à la maison toog tout ça temps encore affaire yi commencé waat ko dikkal mënul nekk ci kër gi compte tenu boo xale yeeg ma femme ma nouvelle femme c'est mënul fi nekk vu son comportement attitude am. dafa agressif wala. non non non elle n'est pas agressive du tout elle n'est pas du tout agressive nekk fi daal benn nekkin boo xam ne neexul peut-être ñeneen ñi. bon man ak ses frères demi frères ki sont là euh, mun fi mën a xaaral quelle est la situation aujourd'hui léegi ñu toog tuuti ses cousines mais ñees ki sont en Europe c'en est énormément qui sont là-bas daal di décider jël ko en charge mu fuggee jóge fi dem yoonam bi mu demee kenn xam xamul fu mu nekk muy wër rek ñu ñu apercevoir ko aux côtés des Almadies comme ça muy dox dox dox un jour sama benn ñees romb ko xàmme ko taxaw qui était véhiculé xàmmee ko taxaw jël ko dugal ko ci oto mënul dugg ci oto bi voilà ñees bi obligé woo sama benn doom son frère qui a moto dem fa ñu fexe ba dugal ko ci oto bi ñu dugg ko directement Fann bi ñu ko yóbboo fan bon les cousines les nièces qui sont en Europe euh, ont décidé de prendre Marie en charge jël ko interne ko di fay yëpp surtout ba mu normalaat ba mu tane moo am benn cousine am aussi bi mu jëndee mu ne comme Marie jënd na xaaral ma jëlal ko benn appartement benn néeg daal au niveau de Sacré-Cœur parce que elle elle habitait là-bas ma ma nièce jëlal ko fa benn appartement di ko fayal équipel ko ko defal ko yëpp tout tout tout tout mais au bout de quelque temps mu commencé waat des comportements yoo xam ne neexul neexul cousine bi parce que la cousine était mariée mais xam nga rek mënoo dëkk ku mel noonu ci biir kër avec tes enfants yooyu elle a décidé woo ma ma léegi ce qu'on va na la jege si. bu jege see xëy na yow nga mun ci moom dara utal ko foo xam ne om peut parce que la maison appartement bi ñu ko jëloon c' était quatre vingt mille francs par mois ça commence à être lourd pour ma ma nièce là mu ne ma est ce que foofu mënuloo ko fa trouver fii ci bi ma ne ko mais si c' possible mu daal jël fexe ba am fi benn néeg fii ci yoon kër gi à trente mille. nièce bi na ma bon je prends ça en charge parce que man je suis à la retraite bon mënuma ko jël en charge ni ses frais médicaux et autres cousine bi daal moo jël loyer bi en charge jël ko di fay indil ko yëpp équipel ko lit armoire tout tout ventilo yëpp alors mu nekk fa nekk fa nekk fa nekk fa alors yëf yi commencé ko comme mu commencé waat sa crise tout le matériel qu'on avait acheté pour mu génn ko ne daf koy sànni tout tout tout tout c'est comme ça qu'elle a commencé la crise génn yëpp ci euh, kër gi waaw man mais ta de faire ma ne ko lu xew mu ne fekk ko mu génne lal bi armoire bi tout daf koy sànni ji si mbalit ma récupéré waat yooyu. ko crise bi daan leen noonu lay def. lay def. day jël yëre yi sànni walla mu jël yére yi maye jël valise bi yëpp tout tout ce qui est comme yëre matériel daf koy jëndee sànni ko ci mbal bi ça ça commence comme ça maintenant pour moom elle n'est pas sénégalaise elle est, elle pas française elle est guinéenne mu wax mu ne day dellu Guinée kon naa ki mën ne ko wax ah, d'accord mais il faut que nga normal jël avion dem voilà mais nii condition yi nga mel nii munoo dellu Conakry. donc Conakry la yaroo. non non ci man la nekkoon ba waaw fii la juddoo fii la dafay kiyam bi formation am euh, cursusam fii la ko defee alors euh, toog lu yàgg dafa toogoon lu yàgg nag gisul yaay ji mu ne dafa bëgg a seet yaay ji ma ne ko y a aucun problème en 2006 ci laa ko utalee billet de tout comme ça mu jëm toog fa. mais après fa la ko lii man la doon expliquer au départ yëpp fa la ko arrivé maladie bi foofu la ko amee. si je comprends bien bi ko xale bi góor bi abandonné si la commencé doon ay dépression. c'est ça bi mu amee doom. waaw ci la commencé am ay dépression donc bi ma ko indee aussi bi mu nekkee hôpital def nañ électrophalogramme euh, mais y avait rien dans le cerveau. amul benn problème au niveau du cerveau c'est ce qu'on m'a confirmé waaw kii amul benn lésion au niveau de du cerveau donc euh, la euh, manque de xam lan nu ñu koy tuddee sax yaakaaroon ci waa ji daal amatul voilà loolu la daal. waa jooju est-ce que yéen koy dégg ba tey. mu ngi koy dégg parce que il s'occupe de son enfant. son fils est là. il est il est à au Burkina il était à en Guinée la nekkoon di liggéey il est dans la télé mu ngi ci téléphonie bi ensuite mu ñibbi dem Burkina il s'est installé là-bas mais on est en relation man ak moom pour son fils pour doom ji donc euh, il s'occupe de son enfant mu koy pour sa scolarité. tey jàppoon su gisoon xale bu góor boobu mën na wéraat. non Marie moom ñoo ma nekkoon ñu ne moom mu ngi woon fii fii la dëkkoon ci kër gi avec son enfant ñoom ñoo fi nekkoon man moom ses enfants ak avec la famille non papa papaay xale. papaay xale su gisoon papaay xale bi tey est-ce que du wér. non je ne pense pas non non non kooku je ne pense pas je ne pense pas yaakaaruma ko de kooku est-ce que non non non je ne pense pas ah on sait jamais ah xam nga on sait jamais. moom ban relation la am ak maire bi nga xam ne si buntu këram lay nekk te mu yor ko yor bu rafet. ah maire ko ku baax la rek parce que dafa gis ne xam na kii jigéen la normalement am na ci kër bu mu jógee nit ku baax la tasel bu xam naa nit ku baax la tasel parce que je m'inquiétais il elle passait la nuit dans la rue fu mu nekk xaw ma ko son frère ay allé benn bés di def investigation. ñu nañ ci benn baar lay faral di toog parce que elle commençait à boire fumer yooyu yëpp daf ko doon def alors maire bi xam naa yërmande jigéen la gis doomu dem ku jigéen ku nekk ci buntu këram mu xam ne kii lekku reerul mais kooku dawal mbirum yërmande rek kooku xaw ma bokkuñu dara waaw bokkuñu dara daara bokkuñu ko ku baax la en tout cas daal ah, en général ñu baax rek ay def loolu jigéen bu ñëw wérul nekk sa buntu kër di fa fanaan euh, di ko jox lekk ku mel noonu boo koy jox lekk dootu fa jóge loolu daal en fait loolu fu mu xiifee ñëw taxaw fa ñu jox ko mu lekk c'est ce que la dame là maa ngi koy ah, de passage di ko remercier parce que ku jigéen bu munti daal tamit nga gis xale bu jigéen bu mel noonu da nga am yërmande ci moom loolu daal mooy maire maire boobu xaw ma ko xamuma tey la ma doom ji woo je crois nabu moo ma wax lii que yéen a ngi ñëw que seen buntu kër lay nekk ñoom ñoo koy jox muy lekk ñoo koy jox muy lekk je m'inquiétais un peu pour muy lekkee parce que fi mu demoon c'est ma sœur qui habitait là mu dëkkoon ci weti clinique Nabi bi bon comme ma sœur a déménagé elle a pensé que ma sœur toujours là mu dem di fanaan ci buntu immeuble tous les jours fa lañ ko daan fa lañ ko localisé woon ci suufi palanteer bi foofu ba ñooñu di ma woo sax naan ma euh, mu ngi déranger des trucs comme ça borom kër ma ne leen ma ci mën kii <laughs> bu yëgee ne ñu ngi ñëw rek mu disparaître. lan la wala bu yëgee ne yéen a ngi ñëw mu daw. ça moom laa xamul xam nga dañ ko bëgg jël jël ko yóbbu pour internet ko loolu mooy suñu préoccupation boo ko internet tamit c'est des frais on te demande de l'argent man bon à un moment donné li ma ñàkk ci moom bari na mais fi mu nekk nii fu ma toll nii voilà voilà j'ai prise en charge yeeg garab yeeg yooyu yëpp bon man maa ko maa ko doon réglé mais aujourd'hui moi je suis tombé malade entre temps donc euh, mënatuma ko topp topp yenn topp yi maa ko daan wëri fu mu nekk ma du luqati ko dem fu ne di ko wër mais fi mu toll nii mënatuma ko parce que je suis un peu malade jëm naa mag yenn yi mënatuma ko sama grand frère aussi c'est quelqu'un qui n'est pas du tout wax lu nekk laa koy wax parce que sawaru ci daal pour wëri ko wala jëm ko jël en charge wala régler ko donc y a aussi quoi naka la lay def nga gis sa doom ci situation bu mel nii. mais ça fait mal <laughs> dama koy xalaat tout chaque jour que jëfe fais tous les jours maa ngi parce que doomam yaa ngi ak man koo ci xool rek sa xel dem ci moom ñaar la am ki kundoo koy ki mujjee am ngi nii et pourtant bi muy dem dafa marié de ni koy gis noonu marié ci la amee kii tuddee ma ko voilà léegi bon sëy bi tasul. tasul jëkkëram aussi nekkul dans une dans de jëkkër ji déggoon naa ne dem na Côte d'Ivoire voilà Abidjan fekk yaay yaayam foofu quoi jëkkër ji waaw donc euh, jëkkër ji daal ba kii juddoo laa ko gëj a waaw bi kii juddoo laa ko gëj a man maa ko jël en charge kii ak magam doomi mari daal maa leen yor maa da toppatoo ñu ngi jàng normal kii ngi jàngi bon kii daf ma taq-taq boo xam ne parce que Marie bi mu jotee nekk fii pas loin de la maison fekk mu soog a génn hôpital elle était bien day jël sax kii dem fanaanoog moom indiwaat ko la matin il mangeait si mais le son problème mooy day bu kay crise yi dootul jeg dootul sax wax ak kii du jege sax fii elle elle a tendance à partir dem day dem si est ce que ba mu génn ak léegi war na ma six à sept mois ba mu dem léegi elle était tout près ñu fay trente mille par mois nga xam ne damay c' pour la contrôler di xool ci lu mu ne bu xëyee ñëw sangu ndekki dem añ soit mu ñëw añ si wala ñu jël añam yóbbul ko këram mais après bu mu kipp ki piki crise dem ci lañ ko gëj a gis xamatuñ ci lu mu ne ba ni ma wooyee ni ne ma mu ngi fii ci benn kër lañ koy jox muy lekk ci laa xam ne elle quelque part mais heureusement heureusement que cette fois-ci elle est dans cette zone parce que bu njëkk da daan dem foo xam ne doo xam fu mu ne ay Almadies non wala mu génn Sénégal mais saa yu ma laajtee ñu ne seen nañ mari côté HLM bi si zone boobu donc elle est elle n'est pas loin dafa nekk ci danger. parce que am na benn xale bu góor bu masqué wu parce que mbaxana bi mu takk ak masque bi mu kii doo mun a ràññee kanam gi dafay nekk foofu maire bi eh, nee na waa ji dafay bàyyi ba guddi jot mu indi alcool yooyu noonu je ne pas xaw ma daf ko bëgg a sàkk wala dafa am leneen lu mu bëgg ci moom. Mhm. bon elle est en dafa keneen ku mel ni moom aussi moom la tasel. nit ku la d'après ni ma ko gisee. voilà. donc euh, ce qu'il faudra mooy bon maire bi heureusement elle a alerté dama koy dama li may mën a def rek mooy commissariat de Rufisque laa dem signaler mbir moom signaler ko parce que c'est une personne euh, yaa il y a quelqu'un qui est en train de s'occuper bon jege ko on sait pas ce qui va se passer après mun na ko violer comme mun na ko rey yooyu yëpp xamuñ benn jaaru nit moo koy fréquenter foofu donc je l'ai tout de suite alerté dès dès dès demain je ferai naa dem wàcc commissariat parce que je suis dans une cité police ay policiers rek laa fi dëkkal donc euh, war naa mun a alerter la police s'il le faut ñu def ronde ñu situer localiser kër gi jéem a xool kii c'est ce gars pour jéem a def enquête sur sur ça quoi. parce que waaj dem na sax ba menacer maire bi. waaw là aussi. bu bu naa dinaa woo na bu mu jox ma adresse exacte bi man je dem def ay investigation dem au commissariat de Rufisque signaler mbir mi wax ak ñoom pour xool ñoom qu'est-ce qu'ils vont faire à part pour sa pour ça la sécurité de la dame mère bi plus moom y saa ça aussi qu'il faut toujours essayer de préserver mmh. bëgg ñi nga xam ne ñu daal la si jàppale ba kii di euh, Marie ñu mën ko yóbbu hôpital interné ko. moom kañ ko ci ku ko mën a yóbbu hôpital je suis je pour boo ko yóbbu hôpital interne ko moom ça demande des frais dafa metti il faut payer ñu jël ko en charge il faut nar nekk accompagnant bi dafa daan sonal parce que c'était je crois dix mille francs par jour ou cinq mille francs par jour donc le nombre de jours bu fa nekk yëpp c'est des frais man ngaa c'est les c'est c'est la prise en charge qui me pose problème prise en charge moo ma posé problème yóbbu naa ko plusieurs fois mais j'ai j'ai saigné pour régler son problème mais finalement cette fois-ci nag moi je suis à la retraite mënatuma ko ma jël mari en charge en ce moment donc solution bi ñu mujjee def y a ces deux tantes qui en France qui étaient avec a à Conakry elles ont elles ont une nationalité française ñoom ñëpp ak yaayam sax Donc Yaji, elle est en train de faire ses papiers pour rejoindre ses deux sœurs en France. Elle, va, elle m'a dit qu'elle va s'occuper en même temps du papier de mari pour Munko, yóbbu ko une fois que décidé dem en France. Pour la prise en foofu charge gën a yombee Ça, maintenant nag ça tarde. Ça tarde à se faire. Bon, mais elle compte quand su fekkee qu'elle a été réglée wu na sa mère va rejoindre ses deux sœurs là ba pare ñu jéem a seet naka la ñuy jëlee Marie en charge pour yóbbu ko. yaa am na ay moyens yu mu ko n'a pas amul moyen yu mu mën a gérer parce que sa mère actuellement ne travaille pas à Conakry bon elle est chez euh, dafa amoon ay doomam yuy liggéey ñoo ñoo ko jël en charge moom ci boppam sa mère mais elle est en train de s'occuper de ses bu paree ce sont ses sœurs certainement qui vont lui payer le billet pour mu dem une fois qu'elle est à Paris elle va s'occuper des documents de Marie pour Marie mun ñu ñëw foofu loolu la wax waaw. tey ñu gis yaa ma wax sànq ni am na ñaari xale yu mu fi bàyyi tey ñoom naka la ñuy dundee seen absence yaay. bon heureusement comme c'est des enfants mais ki ci mag moom xam naa ne il est conscient que sa mère est malade. actuellement elle a il a il a seize ans. seize ans. seize seize ans kooku xam na ne yaay ji dafa feebar parce que crise yi fi la ko fekk mais kii xamagul li xew ndaw li léeg mu laaj ma ko nag ma ne ko Marie rek mu ngi këram mu ne nañ fa dem nañ dem lii nee nañ fa lay fanaan pour moom mari e toujours là ci këram gii parce que fa daan dem di fanaan mais elle est collée à de ter sorte que bon de temps en temps nag xel mi dem ci yaay mu moom mii. góor la wala jigéen góor la. Euh, c'est góor la moo euh, Mohamed dafa dem entraînement en ce moment basket lay def bon loolu daal mooy situation actuelle xale yi quoi fi mu nekk nii mais de temps en temps le plus petit dina poser problème bi ma mère Annie Marie fan la nekk lu tax du ñëw bon xam nga rek nga fexe ba mu jënd ci xel bi nekkaat ci leneen daal. Hmm. c'est bon papa bu fekkee daam si dolli. bon li ma si dolli maa leen di gërëm. parce que je n'ai jamais eu l'occasion d'en parler comme sa à la télé ou voilà mais c'est une occasion pour moi de de m'exprimer et wax ci kaawu Marie parce que son naa ci trop fi mu jaar fi ñu jaar daal yàgg na bon xaw ma lan moo ko dal ñu bari naan ma yóbbu ko fii ñu seet. nga faju olof bi. faju olof bi je n'ai jamais pensé à ça musuma ko xalaat ah, bon pour moi am na ci ñoo xam ne xëy na dañ leen naan mun naa ko faj <laughs> alors parce nga ñàkk si xaalis alors que du duñ la ko la donc euh, boo ko yóbboo fële euh, ci tubaab yi ñu ne la bon dépression la manque xamu lan euh, yooyu di ko traité jox garab muy nelaw ko yeewu après mu normal boobu laa gën a gëm Sénégal dañu am ay réalité parfois mun a nekk ay rap wala ay dara. surtout moom fi mu nekkoon à Conakry en Guinée c'est c'est une forêt il y a que des génies là-bas donc ça mun na ko fa jëlee donc euh, mais essayé gu daal mbirum wolof bi je n'ai jamais tenté mais cette fois-ci xalaatoon naa ko nag ne bii yoon bu ñëwee naa jéem xool. su ba xasee ba xam ba localiser ko ba téye ko maak frère bi dañ jéem a seet fan la ñuy jublu pour yóbbu ko régler loolu ci affaire wolof yi quoi parce que man de xam nga rek yàlla laa gëm julli ñaan xëy na sama ñaan yi moo lii tey sama ñaan mbirum mari ñu ci wax far ngeen feeñ am ku ma wow yàlla ak dégg na ma kon ci ñaan yi ma ñaan chaque jour chaque prière xam naa loolu la donc euh, dénk ko yàlla daal bu naree wëral yàlla dina ko wëral parce que boo duggee ci yooyu affaire u jinne la bon. Sénégal am na ay sëriñ yu mën. surtout ñu si am na ñu am na ñu mën trop sax am na ñu mën mais tombeegu ci ñu mel noonu dama ci tombeegul waaw man daal fa le moment dénk naa ko yàlla yàlla bon lii ngeen def ñu tey xëy na yàlla fexe ba mu feeñ fenn lii ma am ay nouvelle am tey. ngeen ñëw fii bon sant yàlla di xool comme mu ngi mu ngi dund ba léegi rek ñu sant ci yàlla ci loolu mun naa fi yeewu suba ñu ne ma dee na mu nga morgue ba mais comme mu ngi dund ànd ak bakkanam sant yàlla ci loolu déjà hmm. waaw maa ngi di remercier bu baax a baax. Sénégal ka fay kan gi yegsi naa fay say facture ci gën a gaaw jëfandikoo lii dégg jàmm yónne ak jot xaalis bu gaaw te wóor la waaw waaw kàppe de egsi na askan bi kontaan na Sénégal am na ndam ndax doomu réew mi la eh kàppe daal mi moo wóor li ko ko